ñeenteel bi salaatul maghrib bi mooy julli timis timis julli timis salaatul rakaatin la ñetti raaka lay doon. SESMAF groupe scolaire Serigne Modou Abdoulaye Fall Ndar nekkee ci dëkk bu sell bi di Touba diggante janatu Mahwa ak Madiana ci mbeddum 30 mi fi mu tàmbalee jëm ci station sell bi jeexee ci poste courant bi groupe scolaire Serigne Modou Abdoulaye Fall Ndar ngir tàqale waa Touba ak jafe-jafe ci wàllu jàng waaye tamit njéen ñi doon wër njàng mu baax te gën ci seeni doom ànd tamit ak yar bu ma sëkk bërëb bu sell ànd ak kaaraange te mucc ayib loolu scolaire Serigne Modou Abdoulaye Fall Ndar rasulullah sallallahu alayhi wa sallama man akala taxaama képp ku lekk aw ñam fa xaalam wax alhamdulilahi lasi ataxaama ni hësa wala saqani man xayta xawli min nii wala xuwati xufira lahu maa taxaddam min san bihi njéggalef na ko la mu jiitaloon ci ay bàkkaar rawaaxu abu daawud wa muslim ba ñu ko sampee boobaak léegi jege ñaari at waaye nag liggéey bu am solo boo xam ne ñi ngi koy amal ci njàngum ndaw ñi ana mu jàng bu méngoog dëkk bu sell bi di Touba bu ngeen egsee 16 maf gis anam bi ñu nekkee liggéey bi ci ngeen di xam ne école privée yi bari na waaye wute na lool ak 16 maf di groupe scolaire Serigne Moudou Abdoulaye fal Ndar danoo bëgg école bu mucc ayib ndax dëkk bii daa mucc ayib ki moom dëkk bii lu mës a dugg moo ca man ñëpp moo ca raw ñëpp mooy Xaadimul Mustafa kon nag école bii dégg maam danoo bëgg di xool loolu xëy na mënuñ ca àgg waaye dégg bu bu buñ ca nekkee te te te te xool jëmm jooji mën naa am dégg nga maam li nu bëgg ci gone yi danañ ko am ndaw ñi ñooy ëllëgu réew mi te ñoom ñooy yaakaaru réew mi ba tax na GESMAF ne foofe la ñuy tàmbalee ngir tabaxam réew da ngay defar ndaw ñi ñu am ay jikko yu sell te ñu méngoo gi war may dëkk bu sell bii di Touba yar leen ba ñu ne waaye tamit yee leen ba ñu ne jar ba ëllëg ñu mën a jiite présidence ak gouvernance waaye tamit du leen tere ñu jàng jaalibatul maraaxib loolee mooy xemmemteefu ki samp bi école di Cheikh Ibrahima Dieng ay maamam ràññeeku woon lool ci yoonu Serigne Touba wi moom mi sax ba tax na tey ji ñu seexal ko mu ne nag lu mën di am njàngalem Serigne Touba la bëgg a def ci ndaw yi le ngir ëllëg ñu mën a nekk ñu amal njariñ seenum réew. réew mii dafa am dafa am lu fi am lu doy waar gis koo xam ne wolof rek la jàng gis koo xam ne arab la jàng mën a yoroom réew waaye réew mi ku jàngul làkk wi kenn du la fi jox daanaka benn ndomb ak tànk bu am solo ma bëgg nag xale yi am seen alquran am seen xasida am seen yarub tërbiya ba noppi da nga maam nag man ci tubaab bi bu baax man ci anglais bi man ci informatique bi ba bu ëllëgee ministre yeeg directeurs yu foor yi sages-femmes yi médecins yi gouverneurs yi préfet yi di génn da ñu ne aw nañ ci école bii su boobaa moom sëñ Muntaxa mi fi nekk te nekk fi sëriñ bi ku mu soxla ci ñooñi baa fu mu soxla ci foo ci ci barab yooyu bu dikkee fekk fa dongoom dënga mam bu ko gëm boo xam ne su ko woowee mu ñëw ne groupe ci tànkam bu ko joxee ndigal mu dellu bu dee gouvernance bu dee préfecture bu dee bu bu dee présidence sax day def ndigalul sëriñ bi ni ko sëriñ bi bëgge école bi am na préscolaire élémentaire am nañu tamit collège yéene ji mooy yaatal bi leen école di GESMAF mooy école bi nga xam ne ràññeeku na lool ci dëkk bu sell bi di Touba lii firndeel méngoog war may dëkk bi école bi boo duggsee bunt bu nekk am na mag mu ñu ko tuddee ci mag ñi àndoon ak Serigne Touba wala ay seexam loolu nag Cheikh Ibrahima Dieng mi samp bi lépp école ne nag jubluwaay gi weesuwul ndaw yi fi nekk mën a jàng ci suñu mag ñi ci seen ay jikko war ma ju mat sëkk ak ak gis nga bunt yi fi nekk yépp bunt bii eh, bunt sëñ Modou sa jàng la direction waaw moo tax daf maa mas ne jàkk na ma def naa la bopp yaay man ma yow yaay ma yow te loolu man xaw ma lu tax mu wax ko te ba maa ngi nag sama baay waaye eh, gis nga buntu maam Cheikh Rafaal gis nga buntu sëñ Mbàkke Madina gis nga buntu eh, sëñ Moussa Ñang Koll mu yenu ba Cheikh Ibra Fall gis nga buntu Cheikh Atoumane Diop Cheikh Abdoul Ahad Mbacke sëriñ Fallilou Mbacke Cheikh Modou Moustapha Mbacke maam Jaara Bousso ah soxna maam Seyna bu Njaay bu ma ko limee dafay bari ndax bunt yi bari na fi lool waaye bunt bu nekk mën na ne baabun bu nekk rek dégg nga maam tudd naa ko tudd naa ko menn mag li ma ca jublu mooy xale yi dañuy laaj kii kana ko defee nga mën a tànn dégg nga maam lu yem rek ci jikko yu yi ñu yoroon nga xam ne jikko yu sell la jikko yu baax la jikko yu jullit ji jikko yu taalibi lañu ay jëfkat lañu woon di di ko di ko roof ci xale yi. bile école dañ fi jàngale alxuraan dañu fi jàngale tamit français waaye tamit bile école dañu fi jàngale jaalibatul maraaxib Cheikh Ibrahima Dieng ne googu la xasida li ci Serigne Touba waxoon ngir yar ndaw ñi jàjji leen loole bokk na ci li tax ñu leen di jàngal xasaayitu Serigne Touba boobu nga xam ne moom moo di jaalibatul maraaxib. école bi moom. Euh, spécificité am nag mooy dañ koo samp ci dëkk bu yéeme dëkk boo xam ne da nga bëgg a dëkk te bëggoo ñu toxale la fi kon war ngay góorgóorlu bay sàmmonteeg war may dëkk bi gannaaw bi nga xamee ne sëriñ bi moom xam-xam la woote te daanaan dégg ñuy wax nag jar na dem ba saam baaba siin loolu moo waral mu ubbi ko yaatal nag xam-xam wàllu xam-xam yi ñu fiy jàngale bëgg ñuy waaje ci école bi wuti université bi nga xam ne moom la suñ Muntaxa Mbàkke ubbi loolu mooy alxuraan dañ ko fiy jàngale di fi jàngale arab rax naa ca loo xam ne moom xëy na c'est pas académique mais kooku man sama touche personnelle la mooy jaalibatul maraaxib fii aajilin ka aajilin li raaqib dugal naa ko ci biir au lieu que ñu leen di jàngal ay tëppandam ay ay ay ay chanson ak yu ma xamul yu mu doon ñu boole ci loolu. la ma ci jublu rek mooy njub gi nga xam ne moom la xasida gi di jubalub dong alors ma man ko cee am ba bu ëllëgee si biir képp ku fiy génn buñ la denkee dégg nga ma am milliards yi. Eh, askan wi nga mën koo saytu eh, teg ko ci mu njub. moom mi samp biléb école sax gannaaw seex bu mu doon cër bi nga xam ne jox nañ ko ko ci dëkk bu sell bi di Touba am na jaar-jaar gu am solo ci wàllu jàng bokk na ci li ko xirtal ngir mu ubbi biléb école ndaw ñi itam man cee jàngi lu bëri ngir jariñ seenum réew. école ku dem ba di ko ubbi te bëgg a dem ba collège yóbbu ko ba lycée baccalauréat war nga am yenn bagage yoo war a yore donte am ngay jàngalekat ba mën leen koo saytu du dëgg. waaw yàlla def na nag man bi ma amee baccalauréat dama daal di dem France bi ma demee France ci laa am diplôme d'études universitaires général ñu wax ko dëgg bi ma tegee une année euh, ci laa def licence euh, option commerce international tegaat ci beneen année euh, def benn maîtrise administration économique et sociale yàlla defal nañ sutura tamit nag dongob Cheikh Rafal bii moo fa am mention très bien keroog ci ñu doon soutenir ñëpp waaye yemuma foofu lu ma am benn université bu fa nekk boo xam ne day bu ma nawloo ci wàllu gestion ci wàllu économie ci wàllu finance ak marketing alors euh, diplôme ba ma fa bëggoon yàlla def aussi ma réussir ko DESS euh, diplôme d'études supérieures spécialisées kon bac plus cinq da am moom laa fa am kon sama jaar-jaar daal ci gàttal man naa ko yemale foofu. gannaaw loolu tànneef bi nga xam ne tànn na ko école bi ngir tuddee ko Serigne Modou Abdoulaye Fall Ndar di kenn ci njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall gi. Serigne Modou Abdoulaye li tax moo tuddee ko ko euh, ñun Baye Fall lanu sama maam dafa àndoon ak maam Cheikh Fall ba mu boole ko Serigne Abdoulaye Fall Ndar muy wéy juru Serigne Modou Abdoulaye Fall yàlla defit mu bëgg ma lool. di ma bàddil lu bare bare bare bare boole maa ki dong lu ñuy wax ak ceex waaye xam nga ñoo ne taaliba rek moo nu ñor waaye nag ñoo ngi ànd ak dong yi nag di nga am di liggéey ci yoon wi loolu moo tax nag ak cofeel gi mu am ci sama jëmm ji loolu moo waral di nga ma am ma tudde ko école bi ku wax wàllum jàngat jàngale wax nag jàngalekat yu man seen liggéey xarañ lool ba tax na biléb école di GES Maf de yi ña fay jàngale ñu ñu tànn la biléb jàngalekat di ko dëggal ki nga xam ne nii moo moo moo sañ école bi moom moo bëgg école bi mel noonu moo bëgg mu nekk école excellence moo xam ne ni ku ñëw rek waxuma la njàngale mi ñu fiy jàngale mais soo ñëwee soo dugg see rek gis école bi ñu ne la école bi deux ans la gis li fi def ak yeneen chantier yoo xam ne ngi ko fiy tabax di ko def nga xam ne moom moom wax dëgg yàlla affaire bi jaral na ko daal teyit mënoon investir si leneen daal bu ñëwee investir ci wàllu xam ñun duñ def lu may di ko ko si sant di ko si gërëm bien vrai que école français dañ fi jàng français mais nag arabe bi dañ ko fi jàng bu baax a baax parce que dañuy jàng alxuraan dañ fiy jàng fiq mooy lépp loo xam ne nii jullit bi war nag xam si nu muy jaamoo yàlla nu muy jullee ñu muy jàppoo nu muy wooree waaye noonu lañ fiy jàngalee alxadis annabawiya mooy eh, xadis yi nga xam ne yonent bi saa sallam moo ko wax ak it di fi jàngale as siiratu nabawiya mooy siirab yonent bi ak it am na yeneen programme yoo xam ne sax xëy dañ cee commencé wul lu mel ne as siira alxadim ya mooy comme que dëkk bi ñu nekk Serigne Touba moo ko moom tey euh, ku ne xam na ni meloon ci am njàng ak njàngale ak lim bind ci wàllu xam-xam euh, faaw ñu jagleel ko ci loo xam ne nii loo xam ne nii si siiral xadime la muy wax ci jaar jaari sëriñ bi maanaam fan la cosaanoo ak nan la doon jànge ak yu école di ges maf de yi ña fay jàngale ñu ñu tànn la ñu ñuy saytu la ci anam gune wàllu xam-xam sax dàkk ci dëkk bu sel bi di Touba ginnaaw Serigne Touba dëkk bi ba mu koy sanc dëkkub jàng jàngale moo taxoon ba tax na ges maf ne loolee du ci des ginnaaw ni nga xam ne moom lay formé moom lay jële ñi fiy jàngale kenn du fi jàngale te amoo baccalauréat bu wér déjà soo amee baccalauréat ba noppi danaa xool da nga mam CV ba xam am nga expérience wala déet su loolu jàllee danaa xam xam am nga autorisation d'enseigner parce que boo amul autorisation d'enseigner CREC sax waroo koo laal waxuma la cravache parce que benn xale dong da nga boo ci doon mu am tërgën da nga maam buñ la attaqué yow loo fiy def lan lay wax yow kan moo la jàngale loo xale yi fi nekk ay taalibe lenu ay doomi taalibe lenu kon nag mag mu fi nekk te man leen a influencé danaa xool ba xam kii am nag taalibe gu ma gu jar ma dénk leen gone wala déet waaw bu loolu jàllee nag alors danaa am ak mm, enseignant yi euh, li nuy wax dégg nga maam benn euh, entretien physique nga xam ne da ngay toog ma toog ñu wax. jikko moom jigéene wuñu ko fenn sëñ Bamba ak Cheikh Rafal doy nañu ak seen waa kër ñooñu la ñuy roy seen i jikko moo tax école bi comme que du ma fi jàngalee. Eh, magi naar wala magi nasaraan magi sëñ Tuubaa rek laay jàngale kon damay xool mag mi fiy dugg nga dénk ko ay gone mu tëjoog moom ci classe dangay xool ba xam lan lay def ci bopp gone yi lu nu mën a am ci xam-xam nañ ci boole bëgg Serigne Touba te fas yéene koo liggéeyal. lii daal mooy spécificité école bi. am nañ seen bàkku bopp bu am solo bu nu bokkulewut ak kenn mu bokk ci école yi nga xam ne itam sàmmonte nañu nag ak yoon ku fi génnee bépp diplôme boo fi am diplôme bu jaar yoon lay doon dafa méngoo ak ak sart yi yoon digle ngir taxawal école bu mel ni le. fekkente ne da nga dib da ngay bañ a tooñ waaw lépp loo xam ne yaa ngi koy def xam nga su ma neexoon ñëw rek am sama ñaari pantre da nga ubbee école bi di jàngale waaye loolu. boo demoon ba xale yi war a def examen da nga leen di yóbbu ci ku am kayit mu jàngale ji fa mu baa ñu jàngale fa baa ñu passé fa examen loolu nag man taxu ma woon a jóg yarum ndaw ñi jàngal leen yokk xam-xam jëriñ réew mi GESMAF groupe scolaire Serigne Modou Abdoulaye Fall Ndar soxna Awa bu mi ñu cërale bi lépp école moom itam am ay jaar-jaar yu am solo waaye tamit di jàjji xale yi ci wàllu jàngum xam-xam solo si mu am ngir suqalim réew moom itam yéeneem boobu léegi mi ngi koy fësal ci boobaleb école ngir ndaw ñi mën a xool ci ñoom am ay xemmeemteef yu mën a jariñ réew mi nga xam ne bu ñu génnee ci biléb école dinañu nekk nit ñu amal njariñ seen askan amal njariñ àdduna soxna Awa Thioub Fallou Cheikh Ibrahima Dieng gën a jàjjiwaat xale yi ci wàllum jàngum xam-xam. man maa ngi def 37 ans depuis 84 laa dem Amérique euh, dama yore woon ay élèves xale yi dama daan nekk ñoom lu bari loo xam ne seeni waajur sax dañu daan dem di ma bàyyi ak ñoom importance boobu laa xam ne école man dama man ñi ma njëkk a bëgg ci àddina te wax élèves yi nañ leen bëgg te respecté leen su paasee ki nga xam ne kii moom mooy directeur bi nga xam ne moo samp lii rek. dañu war a respecter ñi nga xam ni ñoo leen di jàngal nekk seeni maître parce que dafa am loo xam ni jàngkat bi xamu ko jàngkat bi mooy bénéficier wante du ki koy jàngal ndax xëy na jàngawu pour jàngale wuñ pour merci dañuy ñëw fii di jàngale bu weer dee jot seen salaire mais ki nga def ci boppam loo xam ni bu fi jógee nekk député wala ministre wala président wala commerçant bu rëy wala commerçante euh, boo jógee ci école bi nga doon jàngal mu ngeen dund ba dee dootu leen gisanteeti ci àddina xam nga donc xale yi ñuy defal loolu war nañu xam importance bi jàng am ndax njàng mooy téye suñu réew bu ëllëgee saa yu ma duggee dama leen daan wax ni yéen sama élèves yéen waxuma sax marine bi samay doom ngeen samay sët ngeen. Zasmaf lu yées ñaari at ñu samp ci dëkk bu sell bii di Touba. boobaak léegi ay résultats yu am solo yu ñuy amal yu ci mujj day CFE bi di certificat de fin de élémentaires 100 pour cent la ñu ci am maanaam élèves yi ñu amoon ñoom ñëpp a jàll ci jàmm ak salaam loolu nag di firndeel qualité jàngale bu am solo bu am ci biléb école di Zasmaf waaye tam ay jàngalekat yu xarañ te ànd ak yéen ak pas-pas ci anamu jàngale yu jaar yoon. ñu ñu ngi doog a yàlla defal nañu sutura nag moo tax bi ñu ko njëkkee bi am na nu quatre-vingt pour cent daaw bi ñu ko bi am nañu cent pour cent. Mm-hmm. sunu élèves yi doon examen ñëpp admis. Mm-hmm. mu nekk lu jafe nag. mu nekk lu jafe nag mu nekk lu jafe mm-hmm. waaye nag yi nag loo bëggati lu nekk da nga cay ne.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 القارعات ما القارعات وما أدراك ما القارعات يوم يكون الناس كالفراس المبسوس وتكون الجبال كالإهن المنفوس فأما من ثقلت موازينه فهو في عزة راضية wa amma man xaffat mawaaziinuhu fa ummuhu haawiya wa maa adraaka maa hiya naarun qaamiya sadaqallaahul aziim yaquulu abdullahi wa huwa ahmadu xadiimu man sumaatuhu muhammadu bismi ilaahi wa huwa arrahmaanu wa huwa arrahiimu qaada lil amaanu alhamdulillaahi alal kitaabi مع الشفيع المذهب العتاب سيدنا محمد خير الورى من قاد لي خدمته والصورا ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سيدنا شفيعنا المقدم عند الذي تزكو لدي خدمي محمد وسيلتي وجنتي عن العادي والأذى وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الحال والمال بالتكرار